Euh, actuellement li nga xamante ni moo di la déclaration euh, du politique générale ak nga xamante ni moo di premier ministre bokk na ci actualité yi nekk ci assemblée euh, defagu ko ba léegi ndax jàpp nañ règlement intérieur ba ci assemblée xëy na book am na ay manquement wala boog baaxul yow ban appréciation nga ci am personnellement. mais règlement intérieur boobu ñoom ci lañ doon yàkkamti Amadou Ba mu ñëw def déclaration politique général ci lañ ko dugalalee motion de censure Birame Souleye en ci lañ ko doon questionné ci lañ ko doon euh, euh, euh, wax ak moom ci la waxtaan ak ñoom ci lañ doon addu donc motion de censure boobu xanaa ñoom gisuñu ko woon boobu mhm. alors que te loolu du prétexte ñëw waxtaan ak député yi wax ak sénégalais yi ñi nga ne leen nii laa bëgg a jëmale liñ ma dénk ñoom it ñi ne la defee ko ni ak ni ak ni ñu weccante ak yow ay xalaat mais comme mhm. moom lu mu préféré mooy wax te kenn du ko tontu loolu nag amul pencum ndaw réew mi que bii assemblée ak beneen buy ñëw ak bi fi nekk ak fii boo assemblée fu muy yem boo fa ñëwee boo waxee danañ la tontu ak premier ministre boo muntu doon loolu moom bokkul ak dem fu la neex woo ay say ndaw dinañ la laaj danañ la tontu danañ la laaj te bu ñu àndul ci li nga wax ñu dugal motion de censure lii nga wax nii ànduñu ci aussi dañ la koy wax parce que assemblée moom <laughs> assemblée la donc kon man dama ne Euh, moom situation bi moom moo ci nekk di wax rek mais li mu waroon def balaa muy bind ñoom seen groupe boobu noonu euh, comme ni leen que euh, sumu benn xarit tuddee Thierno Bocoum seen fans club boobu noonu <laughs> donc bu doon ne ku ku mat quand dafay bind lettre président assemblée nationale nekk bëgg naa ñëw mhm. mais dama buggoon lii ak lii ngeen seetaat ko am na ci droit mën na ko wax premier ministre la bu joxe wala bu jaree seetaat nit ñi seetaat ko wala mm-hmm. président groupe am bind ne euh, président assemblée lii nañ ko seetaat avant mm-hmm. premier ministre di ñëw parce que nag dara teguñu fu lu dul soxla askan wi mm-hmm. donc bu ñu weccante ay xalaat rek ku nekk indi sa xalaat alors ñu bu dee am na lu ñu fa war a xoolaat ñu xoolaat ko mais loolu jarul woon ay bind wala yenn message mais mais mais ñoom aussi amuñu majorité à l'assemblée loolu benn critère la majorité bi fa nekk tey par exemple su ñëwee dérouler li nga xamante ni moo di sa de route bu fekkente ne ni convaincre leen yéen bu leen neexee ngeen dugal motion de censure daaneel daaneel gouvernement bi. mais mais motion de censure ñun eh, waxuñu ko dañuy dugal motion de censure ci ay ay ay ay nii rek donc kenn waxu fa woon loolu. moom daal li fi xew yëpp. moom moo ko fa bugg dugal. parce que nag nit boo ko buggee manque respect béy sax boo ko doon tënk fii xam nga béy du matte. mais boo ko doon sonal di ko tënk noonu. bu sonnee rek bu gisee sa kii fu mu matt ci sa yaram bi day matt. nit ñi jox nañ ko cër déclaration bi Bassirou Diomaye Faye le président Bassirou Diomaye njëkk def euh, ne dafay dajale sénégalais yi waxtaan ak ñoom nit ñi dajalowaat jàmm santé nekk benn parce que loolu la Macky Sall woote woon bu muy dem ba defal leen amnistie ñoom ñu mën a génn mun a dem campagne mun a jiite mhm. donc ci loolu moom bu mu ñëwee Bassirou ci déclaration boobu la ñëw mais kële bu mu génne rek alors que li mu doon wax bu mu nekkee gi donc def naan bukki am na almet dossier sàngam mu suma sama bureau nangam nangam mel na ku jafru di wax fii wax fële alors que loolu nag mhm. assemblée bi ak beneen buy ñëw képp kuy premier ministre sooraaleel na bu ñu la nommé danga war a ñëw assemblée te incha allah da ngay ñëw loo koy conseiller man xam nga nag nit koo xam ne moom moo moom moo xam lépp moo mën lépp neexu du conseil <laughs> tey boo amoon benn conseil boo koy jox lan lay doon en tant que député mu mu arrière ci lii muy wax mu dellu ci raison bi nga xam ne mooy dafa war bind président de l'Assemblée nationale njaan ka njëkk nag njëkk boobu ñu ñaanoon président Macky Sall ba mu bañ a bokk APR ci njëkk lay dog Benno Bokk Yaakaar ci njëkk lañuy ñuy dog Assemblée nationale ci njëkk lay dog mais du ci force.